xam nga rëbb bi dem ci àll bi daj na lu ne doog ñay su ko indee day noppalu ji nag waa kër gi feetu ci ñay wi mooy ñay wi Ahmadou Bamba indi tukki bu ne am na sëriñ Babacar tukki bu ne am na sëriñ bu màggalee demal xoola safar yi am na ci guñ ma tuddee xamoo ne waaw am na safar gu ñu ma tuddee prestige muy télé bu Thiès prestige waaw muy samedi muy 18 ah 18 la samedi le 18 man mii leen tuddee safar ga waaw yoru safar dafa garaaw de ci la yonent bi faatu ah safar Maodo ne ne ci la yàlla woo yonent bi mu wuy si ko safar turu weeru arab la arab la du olof de arab yi ñooy tuddee seen weeri safar rabiul awal rabiul saani nangam nangam ñun ñooy wax nag euh, maamu koor ndeyu koor rakko koor <laughs> ñun ñooy dóor yooyu amu moom ñu ngi noonu léegi laa koy ablaay ma ne ko yéen dox leen rek olof moom xoolal fulla ak fayda fulla arab la fayda arab la alfaidatu mooy njëriñ alfadlu mooy ngëneel ah dara <laughs> ah? rek gisut baatu wolof xam nga lu muy firi ko dajale ay création ah, mooy mu ëllëf mooy ku dajale ay création créewul dara kon safar di diggi defe naa loolu lañ koy wax am déet lu muy diggi bu ko moom it ñu baal ma ko rek waaye xale yu jàmbaar lañu ñu ngi góor góorlu di def safar yu jaar yoon ñi am wërsëg nga leen di dimbale ñuy woy ay xasaay léegi dañ koo soppi ku ci ne ay jàng ko def wut ab jàngkat muy waxtaan baax na suñ demee nag bu Tuubaa ñëw ilaa Tuubaa sëñ Tuubaa li mu daj yëgu ko sax xamul tax yëgu ko yàlla wax naa la ba tàyyi ni amul benn murit bu naan damay màggal demuk sëñ tubaa géej gi ndax sama maam daa àndoon ak moom kenn ñi mu ko ak moom kottu géej gi kottu tubaab bi kottu te li lay neex ci sëñ bàmba fu ko julli dab yi mu julli mm-hmm. may ma mën naa fi may ma ma naafile ba Dakar may ma ma julli ba géej gi jeex te li ci gën a yéeme luñ ko joxoñ pour mu dal ci kaw sëñ Bamba loola wan sëñ Bamba ne ko maag yow a bokk yàlla gayndeeg lépp ñu mujj ne dañ koy delloo si mu ne leen mukk tukki day mat wacc bu matul day gaañ borom mm-hmm. ba yàlla dimbali ku mu dellu siwaat te ba muy dem la ne bu bés bi dee seen nañ ma ko màggal sant le mm, ma yàlla mm. waaye defe naa dikkuk sët bi muy sëñ Muntaxa defar na lépp mm-hmm. dëkkam fii mm-hmm. te liñ bëggoon mooy bu demee ñu fay gannaawam mm-hmm. loolu moo tax may la yaanaa maa tasul la dañ naan buñ jëlee ñi ñee tasaaroo booba sëñ Modou Moustapha ngi fi sëriñ Falilou ngi fi ponkal maa ngi fi maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ngi di soññ taal bi rek muy tàkk tey ñaata million gëm xaadimu rasul kenn xamul lu mu toll man nag li ma xam mooy nga nangu ko noppalu nga lànk ko sonn ku daw yàlla kañ ngay àkk foo ni déedéet mu ne la maa ngi nga déparal boo ni déedéet mu ne maa ngi tey boo demee màggal ga yal na ko yàlla mottali na ko yàlla mottali na ñépp dem màggali kuy nit rek nit laa ko nit kuy nit xam ne am nañ benn jàmbaar ci diini ji bu doon xeexal diini ji muy xaadimu rasul boo dee julli sawar ci su dee par parloo kën nga sa affaire la man soxlawuma ci ñoom dara la ana luñ may jox wutuma dara bari na ñu ma jàppale te ay murit lañu jàppale naa catholique man seetuma foo bokk mooy lu ma yàlla jox rek ma gis ko ko moom ma jox ko ko man noonu laa mel amuma leneen kon màggal gi nañu dem santi màggali kuy nit dawal Touba chauffeur yi ñu def ndànk ku am oto boo mën a yóbboo ay nit nga xam ne nit ñooñu duñu fay dara nga def ko ngir yàlla def ko soo ko mënul nañ dajale instant def ci nga yóbbu leen soo ko mënul wàññil paas bi waaye bésub sëñ Tuubaa kenn du ko defu kaañ de kaañ ne am na am kaañ ku daan fay té juróomi téeméer tey ñaari junni nga may fay déedéet na ñëpp def noonu dem màggal kuy nit demal màggal ne ko ñëpp waaj suñ jógee daw ci gàmmu gi nag xam nga màggal gi kenn ko moom waaye gàmmu gi ñëpp ko bokk <laughs> loo ci man moo nekkoon ci géej gi moo doon sonn moo doon reyanteeg tubaab yi loo ci man su ndam ñëwee doo ko ko yéene waaye nga toog fii naan am ñaan Iran sax est-ce que du murit moo yaa soof ah, boobu mooy lan dangaa soof rek mais xam nga ne <laughs> sama benn xaritama ko woon bàyyi Touba Gueye ne ma Bachir nee ah Iran de bu dul murit léegi mu jébbalu de jege na de noonu la Bachir di waxee ah jege na de moom daa ni muy tuddee sëñ Tuubaa métti na de waaye est-ce sax nekk ko di ko nëbb far benn yoon. bàyyi tuuba ni ko ah wax ko ko mu ne ah ñeme ko. waaye booy wax lu baax ci congaan ñu ne wuy daa bëgg mu koy teg ci sitam nangam nangam pour lan sëñ Tuubaa li mu dëj ci diine ji dëj ko ci tubaab yi nii ñu bone mooy pexe mii rek ñu def ci corona bi. bëgg yàq suñ diine sëñ Bamba lànk rek di xare ñu ne buñ ko fi jëlee danañ am liñ bëgg jël ko yóbbu nekke buñ ko fi jëlee ci la ñuy gën a ñàkk liñ bëgg ñim bàyyi woon taxaw temm grand sëriñ nee na ma Iran bàyyi ko mat moo gën bàyyi lu mat du Bamba ba muy dem géej dafay bàyyi ñu mat ba mu ñëwee la mu fa fekk kenn xamul nu mu toll bi sëñ Muntaxa di del si Dakar fii ñu ko jaar li ko yóbbu pour sànk ko pour fay daaraam ay million yu doom aadamaa fi day jàngale naa fi julli ci garab mënuñ ko woon a dégg waaye keroog dégg nañ ko de ñi ne ci kaw oto yi ñi ne ci miir yi ñi ne ci garab yi di julli lañ doon bañal sëñ Tuubaa ñu di ko def ci garab yi ak oto yi sëtam jiite ko ñëw taxaw koy xeex ni defal ndànk xamoo fu yàlla mu mujj ak moom kon mag mu toll noonu ak liggéey bu baax boobu ba pare tuddee boppam xaadimu rasul ak xaadimul Moustapha yooyu ni ko yow nga bëgg yónent gis ko jeex takk ci moom bëgg yàlla gis jàmm jeex tàkk ci moom nga ne da koy bañ fooy teg sa mbëggeel mën na maa bëgg Babacar bañi doomam déedéet ilaa Tuubaa nag na ñépp dem kuy nit waajal dem yéen si di leen sànni rek waaw ay ca ilaa Tuubaa rek fu ngeen nekk ilaa Tuubaa rek ay ca ñu dem ilaa Tuubaa rek ah loo ci mën dem rek man suma ma maa ngi del kër soxna Baali. ah Iran day émission fa laa koy defee. man fi may defee émission ci ci wetu jumaa ji la. Mhm. maag jumaa jee jàkkaarloo. pojomu seen TV. Mhm. su ma paree sama fi may defee émission ak kër soxna Baali benn la. soxna Baali nag du nit. Mhm. man dama fa dem gis ñuy lal ay nàpp. ba génn tele bi mbedd ma li ma ne waaw. waa ji yow lii lan la mu ne ma bàyyil bañ pare rek <laughs> ñu lal nàpp yoo pare commencé teg lekk yi di rangale di rangale di jeex ñu teg ndox yi di rangale ba yàgg ñu teg boisson yi mu ne ow oh! ñii de ku ñu rey la ñuy wër ñii ku ñu rey la ñuy wër ñu dem mu ne jóg leen ndékki ma ne waaw <laughs> man damaa wooroon ma ne alhamdulilahi rabbil alamin <laughs> waaye dog jot avant may jóge jumaa ja fekk ñu rangale lekk yu dul jeex ab du Mbàkke defe naa du noonu Cheikh Abdou Mbàkke doomam doomam wut benn waaye ne ko toogal ci bunt bi garde Iran bu kenn dugg day lekk wallaay tabaski soxna bali xar mu rëy la ma yónni après tabaski ma ne ko aw soxna si lii mu ne ma déedéet damaa tukki woon te dama ko yéene woon man foofu suma daluwaay waaw màggal nga ne ma ndax da nga foofu laay defee émission rek euh, yàlla ñu may jàmm suñ jógee nag foofa dal di lagg Tiwaawoon nag lagg Njaasaan euh, dëkk Kawlax waaw ko defee nañ dem ci yonent bi nag mm-hmm. du noonu mm-hmm. su ñëwee Tiwaawoon def li nuy def mm-hmm. dem ci yeneen dëkk yi def li nuy def waaye màggal moom kenn ko moom gàmmu nag ñëpp ko bokk bu leen jaawalee dàllu càmmoñ daam ak dàllu ndeyjoor jaajëf waay